ba am ci dolli ci waxtaan bi waaye ba ngay wax dañuy dugg nag ci question yi question yi nag mooy question yu am solo ndax question d'actualité la kenn ku nekk bi ngay xam ne ci question yi nag boo xam ne nit dina ko laaj moom moo ko laaj waaye ñu bare bari bëgg nañ koo laaj ci xamuñu léegi nag bu ko defee kon tontu bi nga xam ne moom la ko saa si dañu tontu ki laaj laaj waaye tontu wala ña nga xam ne bëgg nañ ko laaj laaj nañ ko ndax mën nañ ko laaj wala yàlla xam yàlla xam daal bu ko defee oustaz fi ñuy tàmbalee ci laaj bi ki dafa wax ne mal farqu bayna al islam wala ananiya maanaam lan mooy différence bi nekk diggante l'islam ak mondialisation ndax al ananiya defe naa mooy noonu

sëñ naa takk ñaar sëñ naa takk ñett sëñ naa takk ñeent sëñ naa am seen soxna ñaari soxna ñetti soxna ñeenti soxna gis naa loolu la wax code bi nag daane fi mu ne ku dem bëgg ñu ñu ñu ko sëyeen benn da ngay ànd ak si ñoom ñaar dañuy ànd dem toog mhm. bu nawet ñu ne waa ndax yow da nga naan seen soxna rek laa yem wala da nga naan man damaa dem ba ñaari soxna waaye du ma ko weesu wala man damaa dem ba ñett waaye du ma ko weesu wala man damaa dem ba ñeent loo ci wax dañ koy bind te buñ ko bindee itam seen soxna rek ci laa yem. Hmm. bu yàgg yàgg lu ñoom yaa ngi ñëw naa lay kenn mais nag mooy maa ngi ci ñaar waaw loolu mooy dëgg-dëgg. ñu bëgg mooy ñu bañ a yor seen soxna rek. waaw te ñu bari. bu ñu ànd ak seen soxna suñu xam ne ñu koy door a fekk ñu laa tudd moom loolu mën naa am. dina ko wax yem de. te li ci doy waar nag. loolu di caagin loolu nga wax noonu. Hmm. day àgg sa diggante soxna si rek. waaye seen diggante bu jeexoon itam la nga waxoon moom moo nekk ba tey bu sax moom takk soxna sax nga yoroon ci ñaar laa yem wala ci kan laa yem su soxna itam doo sañ boo dem demal seen soxna itam bu ngeen tàggoo itam nga waxoon man nga man man naa ba ñeent te sa ngi ñëw léegi ñett laa yem wala nga wàccaat ne nga ñaar laaya wala ci kenn ci kenn noonu tam bokk na ci wuute bi am diggante lislaam ak fardu ci wàll boobu bu bu bu bu njëkk bu ne lan mooy waaw diggante lislaam ak laïcité waaw xam nga lislaam diine la laïcité nag mooy bañ a boole diine bañ a boole diine ci liy doxal mbiru mbirum mbir mu li ñëpp bokk bañ cee tënku ci diine jenn diine jenn kon mooy jëmi diine bi mag doon rek sa wàll laaj laïcité ndax laïcité moom mooy bañ cee boole diine bañ a boole diine ci ni ñuy doxale mbir mi ñëpp bokk loolu mooy asi dañuy dañuy tanente nag dañuy tanente ku wax loolu yam rek mooy jëmmi li ñuy doxale mbirum réew moom tënkoo ko ci diine waaye nag doxoo maanaam buntu xatul li ci seen diine kenn ku ne bàyyi ko ci diine jëm-jëm mu di ko doxale na ko ko na ko na ko ɓiɗo ñalaaɗe ko fotan ko fotan am na laïcité boo xam ne du yebtelo la waaye sax dana jàppale nit ñi ci seen diine lu mel ne Sénégal Sénégal laïcité mooy doxalinu réew mi tënk ko jenn diine waaye nag bàyyi waa réew mi kenn ko diine ñu ko soor mu nekk ca di ko doxalee itam nag ko diine digle yemu te waaye danay dimbali nit ñi sax seen diine parão, vai pedir esse né, não é do Flas. Flas moom daanaka laay si de fireetul ne duñ yore ni ñëpp bokk duñ ko tënk ci diine waaye daanaka mooy diine ci boppam daal duñ bàyyi nit ki di ko feeñal daal ñoom daal noo xam ne dañoo seen diggante ci seen biir rek dañuy daal moo tax ba France ñu dem ba ne jullit bu jigéen duñ nangu mu muuru di dem ci ñuy tuddee ay ay ay place publique mooy fi fi yi daje rawatina ci euh, service yi ñu ñoon loolu wax dëgg yàlla boobu laa si loolu moom yaa si mel ne ñu ne attee tool mbir mbir ñëpp bokk ci diine waaye da ngay def mënut a wax ak tool diine tey mm-hmm. France ñoom foofu lañ àgg moo tax seen laïcité moo moo yées ci laïcité yi ndax jëmut ci ne rek li ñëpp bokk lu ñu ko àttee diine waaye day dem ba danaa cay jullit ñi ko gën a jagleel mooy bu taxawal jullit ñi daal ndax sax du ñëpp waaye jullit ñi ndax jullit ñi dëgg-dëgg ñoo ci am yoo xam ne seen diine lañ ko digal jullit bii diine moo ko digal muuru maanaam muy sol jot léegi nag kii li ko diineem digal nga ko doo ko def ne ko laaj si te waaye daa am leen daa am leen loolu xeex diine la waaye nekkul laa seen jëkkër moo tax kon dañoo wuute ci réew tubaab yi tam noonu la demee moo ne Angleterre laay si la ñor waaye moo ko Sénégal ñoo yem nangu leen diine dañu leen jàppale sax di leen di jàngale diine sax seen école école école école publique ay Allemagne ay réew yu bëri dañ France daal ñoo ci xalaat ñuy jàngale ñoom école publique yi waaye dañuy dem sax ba ne li la sa diine digal yow te mu wuuteeg liñ xam ci réew mi loolu yow duñ la nga di ko def ci ci kanam ci penc mi ñaar ci penc mi boo dee si biir kër xëy na ko def muuru waaye nag penc yi moo dootul muuru ndax muuru bi ci topp mooy. il faut laaj ne hal yakunu miraasu fi buqati lati sakanatha al warasa xanaa ci li ñu tekki mooy ndax miraas bi day nekk ci barab bi nga xam ne ñii ñi war a dondu fa lañ dëkk waaw loolu laa leen wax. waaw fa lañ koy defee ndax fa lañ koy defee. waaw ndax fa lañ koy defee waaw. hal yakunu miraasu fi buqati lati sakanatha al warasa ndax kër gi nga xam ne ñi war a doon ne fi ñu dëkk. gi ñu dëkk. lu mu moom dañ koy miiraas. moo xam da ko moom xamle woon ko wala moom dénkaane woon ko wala moom mayoon nit mu nekk fa lu ci mën doon rek moo ko moom ginnaaw xam ne dañoo def dañoo dëkkoon seen baay seen baay wala seen mag ci seen fa jógee moo ko moo ko moom kon dañ koy doon daal naa waaw dañ koy doon buñ ko doon ñi koy doon buñ leen mayaat lañu dëkk fa xam ne ko mayaat buñ leen ko mayaat ñu seet fuñ dëkk waaye dëkk fa rek du tax moom ko bu dee loolu la ci jubluwoon bu dee daal jublu ndax fii dëkk lañ koy defee bu dee loolu moom amul fuñ koy defee miraas amul fuñ koy defee miraas amul fuñ koy defee nit mën naa dëkk Tuubaa ñuy doon yëpp dëkk Tuubaa bu jógee si miraas ñu def ko fii ñu def ko fii di absolamaane xam li bàyyi lépp rek tamit ñu war a doon ci maanaam miraas moom ko war na xam kenn ku nekk na ko war a am mu seddale ko man ko nekk lii war a am kon béréb amul béréb bi ñaan ko nekk rek bu fekkee loolu jubloo jërëjëf sual ataali ma xukmu ma banaahu waladu fawqa milki waalidihi mooy lan mooy atteer li nga xam ne doom day ñëw tabax ko ci kaw loo xam ne bàyyi moo ko moom comme bàyyi tabax ba noppi mu ñëw tabax ci kaw loolu ca wala terrain boo xam ne bàyyi ko moom mu ñëw tabax ci di am ah. nit ko mu tabax ko dëkk ko bàyyee mu tabax ndax daf koo may bu dee daf koo may moom moo ko may kon moom moo moom fam tabax moom tabax ba ak fam tabax muy suuf sa moo ko moom ginnaaw daf koo may bu ko mayul nag nga xam ne koo bàyyi mu tabax fa kon moom moomu suuf sa lam tabax la moom suuf si dañ doon ndax bàyyee ko moom suuf si dañ doon ndax bàyyee ko moom te ko mayoon mu tabax fa rek dëkk kon nag fa rek la moom ndax suuf si bàyyee ko moom boobaa kon dañ koy dañ koy noonu bu dee miraas nag li ñuy faral di doxale bu mel noonu boo amee dañ naa ko yow li nga xam ne yaa ko boo soxlaa béréb bi boo soxlaa fii sa tabax sa tabax bi nekk dañuy xayma suuf si nga jënd ko boo ko jëndee yaa moom lépp léegi ndax li ci ko yaa ko moom bu fekkee soxla boo ko ñu xayma lañ ci def boole ko suuf si jaay jaay ku ko mën di jënd ñu jox la yow li nga moom wala li téléphone li féetee suuf si ñu boole ci miraas mi ñu seetlu sukkural ak leer na nañ beneen question bi dafay laaj ne maa hiya sifatul imaamati wa hal yasixu wa hal tasixu salaatu xalfa man la tatawaffaru fiihi assurur maanaam lan mooy sart yi war ci nit ba mën a nekk imaam ak it ba dajewul ci nit ndax julli ci gannaaw dana wér. waaw sart yooyu ci gën a moom mooy la mën a jàng alquran waaw na faatiha ji moom la mën a jàng yaa ngi wér faatiha ndax faatiha mooy farata ci alquran julli na ko. mën a koo mën a daan ñaan mu wér jëf yi jëf ci jullit yi tam na ko man na ko man ndax xam itam luy tax julli wér ak luy tax luy yàq julli daal ko yàq lu yàq julli na ko xam yooyu ñëw coog ci li ci ka ko manqué du mën a jiite ku dul kum ca kum ca yamal rek mën a jiite ku mënut a jàng fàtte njàng mu wér mën naa jiite ku mel ne hmm. ku mënut a jàng fàtte njàng mu wér waaye mënut a jiite a jàng mu wér ku xamul àtte yu julli mën naa jiite ku ñamal ca loola waaye mënut a jiite ka ko xam hmm. kon su tënk rek loolu hmm. mooy lii tax daal ñu julli ndax loolu moo tax ñu julli farata lay farata yeneen ponk yi doon farata itam koo xam ne xàmmeewu ko wala xamu ko kooka jullee bu wér ak wér du ko am kon kooka bu jiitee ku jot ne moom ku mel ne moom mën na ko jiit noonu ñaar waaye mu te jiite koo xam ne rek la moom moom mën na ko wala xaw moom am na ko. sukkuraan. ki la laaj ki nga xam ne dafa jënd marchandise bàyyi ko ca jaaykat ba kon nga dem fay bàyyi ko ñu dem ba yàgg marchandise moom nga fayoon njëkk a yokk ndax jaaykat boobu am na droit nga ñëw mën na la yëfi dafa yokk moo xam ne wax na istashtara sil'atan wa tarakahaa inda al-baa'i'i thumma irtafa'a sirruhaa faqad yajuuzu lil-baa'i'i an yaziida fi sam'i day mel ne sayal ko la wax ma sayal da ko jënd bàyyi ko moom te sayalu ko. ma na kat. fay na waaw. istara la. maa ngi leen xaajale mujj moom laa def bu fayalu ko it laa def ndax jënd mooy déggoo bi rek bu xasee déggoo rek bu xasee déggoo. dama bëgg jënd lii. nangam laa koy jaayee dëppoo nañ kon jox ma nga xam ne bu fa nekkee yow la fa nekkal yaa ko fa bàyyi ginnaaw yaa ko fa bàyyi rek mooy kon jënd ko moo xam fayal nga moo xam fayal ma waaye bu fekkee fayal ko donc waa nga njëkk bu fekkee fayal ngay ñoo yem waaye marchandise yaa ko fa bàyyi dina yaa ko bàyyi yaa ko moom kon jeex na njaay mi jeex na ba noppi bu ñu xasee dëppoo ba noppi kon prix bu yéeg bu wàcce bi yëpp moom yoonu ñu nekk ci moom ndax jaay nañ ko moom jot njëg yi xam naa laaj bi li tax borom bi ko laaj mooy comme maanaam par exemple nga jëndal ci jaaykat bi ciment na ko jaay ma ñaari tonne ciment ma ne ko day jar cent quinze mille nga def ko cent cinquante mille bàyyi ko fa léegi moom mu dem ba déppam jeex léegi nag dépp jeex na waaye xaalis moom moo fa ñu dem ba nag ciment ñëwaat léegi dañuy jàpp torom soixante soixante prix quatre-vingt mille xam nga teel na dund léegi xam naa li muy laaj torom mooy la nga jëkk a nga xam ne day dund. waaw ko dégg dégg. yow mi jëndee ba noppi nag koo dénk ki la ko ko jaay waru ko jaay ba naan yokk la moom dénk ko ko dafa tegal ما شاء الله لأن أنا كيف في لايت كيف خامنة دنكو فر كده كم منت منت دنكو فر ما ما ما مسؤولية من يترى من يترى أسف في سيدنا ولم يسلخ أو ولم يسلخ لما اختير له ما يرفع سامي تقوى من الله تكفى تفير تجلل تجمنه لأنه يرفع سامي تقوى du ma war waaye ñàkk wax dëgg ko def ñàkk wax dëgg ko def ñàkk wax dëgg mooy kii teye ki nga xam ne ma tànn ne ci béréb kooku moo war a tànn ko ne uttu koo xam ne bu ñëpp bokk dénk na ko nit nga xam ne am na ku ko ci gën a yey ne ko def loolu war na yàlla war na yonent bi war na jullit ñi kon kii dénkaat lañu ñu ko wax kii ñuy dénk daa war a doon ku ko yeyoo bu ko bu ku yeyoo bu ko ko war na yàlla war na yonent bi war na jullit ñi kii dénk itam na boppam xam na ne moom liñ ko dénk mënu ko daaw naan daaw daaw war a jébbalu daaw war bu jégaluwul moom waa bi dafa jégalu ndax mi ngi naan lu la wax xam ne moom kon ki dénkaane ak ki ki dénkaane warut a dénk ku ko yeewoo suñ dénk tam xam ne mënu koy def ki nangu koy dem yaa ngi moom. sukuraat kii moom dafay laaj ki nga xam ne dafa jàpp ba noppi daal di toog ndax bu jullee jullee bu wér hal hal tasihu salaatu man istahmala tadxiir ba'dal wudu dama loolu lay def ah, waaw waaw ku jàpp ba noppi toog ndax bu jullee jullee bi wér na hmm. ah, waaw waaw seetlu dara jullee bi wér na jullee bi wér na euh, lépp loo xam ne loram moo ëpp njariñam dagan te jëfandikoo rawatina loo xam ne xamee su ko xamee ne su ko njëriñ pour moom foofu moom dañoo lan njariñam te loram moom kenn xamul nu toll docteur yëpp ñu toll loolu wax loolu ci nekk kenn xamul nu toll te sax fa ci nekk te bu amoon sax te loolu day te bii ko na waaye jàpp balaa ko tee bu ndax ab imaam wala ab bayaankat am na droit ne ci ci minbar di campagne ndax it ab jullit am na droit ak imaam ne ci kaw imaam bi di xutba wala nit bayaan ci bayaan bi wax loo xam ne xam ne lii du diine mu jóg topp ko ñëwatu naa ko foofu. ñaari laaj. waaw loolu ñëw naa mooy lan. loolu mooy campagne. campagne li ñu firi mooy di jéem a woo nit ñi di jéem a woo nit ñi bu fekkee nag ci wàllu politique bi nga xam ne dañoo toll kii di sàkku kii di sàkku kii di sàkku kenn ko ñu ànd ak moom di ko dëgëral di woo ñi ci ñu ànd ak moom ñu koy campagne bi ñu àgg na ci ñi ciy jullee bu doon limaan moom ñi ñuy jullee ñoo bokk péete ci wàllu ko misaal wala ci wàllu xalaat na déggal nañ ko daal déggal xam ne doyloo nañ ko doyloo bu ma sëkk kooku sañ na ñi nga xam ne ñooy sàkku moom xëy na mu xam ci lu ñu xamul ñoom moom dana sañ ñi sàkku moom mu wax nit ñi ne man kii laa jàpp ne ñu am ne moom moo loolu sañ na bu fekkee xam ne loolu du andi ak tàkkale ko wax bu yoo ci biir bu ci xamul loolu nag bañeen bu ci yooyu moo gën na ci wax kuy tànn fan la ko war a teg ko war danañ ci wax kuy tànn ku ne fan la ko war a teg kenn ku ne buy tànn mu bàyyi xel loola waaye bu xam na ne ko nag ñëpp nangul nañ ko déggal nañ ko te liñ leen wax itam loolu la gis ne mooy njariñ dëgg dëgg boo sañ la boobaa sañ la. maanaam ndax. waaw ab jullit rek sañ na. waaw imaam bi du xutba. waaw mu jàpp ne imaam bi man lay wax damay léebu wala kii di bayaan man lay wax mu jub julli gi toll. ah déedéet loolu moom bu dee daa jàpp ne ko léegi rek moom lay waxal ginnaaw nit ñi xamuñu moom lay waxal kenn waaye xëy na pour daanaka lu ñu faa mooy bu fekkoon ci wax daa dugg ci leneen la boo xam ne du wàllam daal daa dugg ci leneen du dul wàllam misaal mooy ñu tudd nit di ko xas wala di ko kii wala yu mel noonu loolu du baatu ilimaan loolu moom nit mën naa doon kese bi kat yeetuñu man ko wax nag ndax ilimaan du du dina ko soxla lu def pour ba waxaat nit ñi leen di jariñ seen àddina seen àllaaxira loolu waroon na waaye doo ko di amee keneen nag di xas nit. wala ñuy tuumal nit wala ñuy nangam loolu ku ko defoon nag kenn mën naa ñëw ah sëñ bi nag waaye nag moom ci boppam mu jàpp ne moom lay léebu wala moom lay gaar wala moom lay nangam loolu nag loolu sax muy wax moom boo waxee rek moo tuumal boppam ndax biir maa ñu wax rek mën naa am kenn du xalaat ne moom lay moom lay gaar wala waaye nit ñëpp nit ñëpp noppee na noppee noonu rek jërëjëf tontu question boobu nag boo gisee mu defar dafa dafa ci ci ci imaam yi xam ne bu ñu xuloo yow sax bu la ñuy wax dama ci déglu benn anecdote boo xam ne benn imaam la woon boo xam ne bu ma ko waxoon ci loolu xaw ma gën a def dafa def bu xuloo yow sax bu ñëwee ci ci minbar bi wax ci yow la jëm dégg naa même ci kàddu gi mais bu fajar jotaa bu bu bu bayaat ci bi sax. au lieu mu wax jóg leen julli waaye yam cee wax mooy day wax bàyyi leen nelew yi jóg leen julli ci bàyyi leen kottante bi kuñ kottante bër bi door bàyyi yoo wax di julli léegi nag bi ko bi ko gaa fajar jotee ba imaam war a ñëw julli si bi mu leen bunt bi rek waa ji di tëll ci kees gi rek imaam tëll ndeysaan mu tiit ca tiitaan ba joo xam ne nag daanaka xawoon na ci jële sax euh, kii waaye loolu mu doon moo ko waral yu mel noonu dafa xaw a bëri rek moo tax ñu laaj question boobu alaaka daal laaj bi ci topp dafay wax ne ndax jigéen ndax dagat na ci jigéen mu yëkkati kàddoom moo xam day jàng alquran wala muy jàng xasida jigéen ki jaar alxuraan ci wala xasida ci kaw wala wax ju baax daal koy wax ci lu lu ko tey rek xam na nag ñuy wax ñu koy ñu ñu wax leneen waaye def na loolu ko yàlla jigéen moo góor a yow liñ ko tere ci wax moom la tere wax yi bu yiw dañ ko tere góor dañ ko tere jigéen waaye wax ji bu yiwee wax yi bu yiw koo mënu ko tere jigéen ni ni ki nga xam ne xamee suñu ko tere góor kon jàpp naa loolu rek moom Sénégal ki dafay laaj maa maqsuud bi haazal bayt moom day firi bayt bi daal aqtaytani jamia duuna salafi wali taqudu su'la waqta talab def naa mi ngi nekk ci xasida wakkaan naa ko waaw loolu de xam nga wax moom mën naa firi wax bi firi wax bi mooy li ñu firi ci kaw waaye lu ca borom dugg dëgg dëgg dëgg dëgg nag du neex a wax waaye wax ji li ñuy firi moom mooy jox nga ma lépp te doo lépp jëlaan la moo xam jox nga ma lépp te doo li ma doon laaj itam jamono bi ma ko laajee ma ko jox jamono bi ma laaj jamono bi may ma koy laaj ci ma koy jox bu ma lay ñaan rek ñaanal bu ma lay laaj bu ma lay ñaan rek dana mat loolu la firi ci kaw bi dëgg ci dëgg-dëgg nag moo ko bu fekkee jub na ci leneen loolu li ñuy firi ci kaw bi maanaam ci ñu ko firi ci kaw bi rek suukara bu ko defee laaj yi des na ñett ba ñeent waaye benn bi rek lay génn ñu ñu dugg ci commentaire ndax xaw naa tamit si bëgg na ba loolu ñuy dugg mu jeex te it sëriñ si bëgg na yëkkati seen kàddu waaw ki dafay laaj هل يجوز أكل المال الذي ورثه الماء من قبل القوانين غير الإسلامية؟ ما يكون كتلة خمير من تجي ميراث؟ نحن لا كتلة دولة تجي ميراث ما ندخ دعنا نقول لك على طول. واو ديجن دي دانجا نعم يا سلام مويه فيديو sama miraas moom bu ko yóbbu bu ko yóbbu tribunal pour ñu def ko ndax mën nañ ko defee lu wute ni pourcent ba ñu ko waxoon rek code la famille nag léeg nit ki du fa dem waaye du ko yóbbu am na ci nit ñi ñoo xam ne àddina jaral na leen ci misaal bu dee jigéen doom la am ay doom yu góor mu xam ne bu dee lislaam góor bi da koy waaye bu ñu ko àttee ci code la famille ni ñu ko tëralee ñu ko ëppale ñoo ci ñaam tax moom mu yóbbu ko ngir daw meeraat mu mu mu mu kii kooku moom lan def moo moo garaaw ndax moom moo bàyyi àttam yàlla dem ci beneen àtte ngir di ci daw njëriñu àddina kañ ko yóbbu nag moom demul fa boppam dañ ko faa yóbbu rek bu fekkee jox nañ ko lu yées la moo war a am dëgg-dëgg mën naa bàyyi rek bàyyi ndax moom daa bàyyi daa bàyyi àttam ku mel ne góor boobu noonu mu dem mag góor jigéen ñu bokk ñu bokk ci fi jóge ci seen bàyyi wala seen yaay bu fi jaaroon ci lislaam góor gi day ñaata jigéen ci bu daan jigéen da koo yóbbu ci tribunal ba tax ñu a màññ ko moom mën naa bàyyi rek nangoo nangoo ñàkk muñ ko bu fekkoon ne yóbbu ko daa tax ñu jox boobaa la ëpp day xoolal ba doon lislaam li muy xam ni muy toll la ëpp bu mu ko jariñoo la ëpp bu mu ko jariñoo bu fekkee mën naa gis ni seppoon miraas bi ñoo xam ne da am na ko jox bu ko mun a xam mu saata waaw la ëpp moom la xam ne dañ koo jox te ëpp li ko lislaam jox ci miraas bi bu mu ko jariñoo bu ñu defee liggéey si ñoom mënuñu ko kon jërëjëf xam naa question yi dara day amal ndax fukki minute ak juróom daal dama def lu ci kii ci kilifa yi damaa tudd ñoom sànni ci ay kàddu bu ko defee suñu ngi santaat ci gërëm ci ñaan yàlla yàggal la fi bàyyi la ak sa wér te yokk say xéwal ndax wax dëgg yàlla dina ko wax